ñëpp yal nañu yàlla boole jéggal suñu rëcc rëcc suñu diggante ak moom te dox ci suñuy diggante ba kenn ku ci nekk am lu wóor lum jàpp ba du xool keneen lu mu koy toppee yal nañu ko yàlla defal ba yàlla boole ñu ci ñuy dugg aljanna bu ëllëgee waaye wax na ne balaa kenn dugg aljanna day am lu yàlla génnee ci moom muy xeeti mbañeel xeeti kañaan ak xool lu keneen am ba di ko ca bañe ba di ko añaane yàlla ñu ci yàlla musal tey dañuy wéy sof ci lu ñu tàmbale woon keroog ndax dañu fi doon waxtaane jàngoro ju dal réew gi dend ak ñoom yàlla na ko yàlla yamale foofa junjoon ne lu dal nit ñi rek ay mooy yàlla yu feeñ ak yu ñuy nëbb moo ñu koy teg yàlla moo waxoon ci alxuraan ne ñenn ñu nekk xaalis ba ñu ma jox weccatem laa leen di delloo fa kullan axadna bi danbihi gis nañ fi ñoo xam ne ci aaya boobu yàlla daa yabal ay malaayka malaayka malaayka yi salleeru ci seen nopp ya tiitaange dal leen seen tension yay yéeg ñu dax ko faatu am ñoo xam ne daa digal suuf mu xar ñu dugg ci biir mu mu ubaat am ñoo xam ne ay taw la leen yónnee ñii mu yónnee leen ngelaw ñii mu labal leen yal nañu ci yàlla musal booba lu way mas a joxe rek ñu delloo ko beccatal waaye bi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ak tey yàlla daa ubbil jullit yi bunt bu ñuy jaar boo xam ne la ñuy def nu mu mën a toll ba nattu ba daan dal gaay yi su melut nam daan mel ca gaay yi it day da koy jaarale ci geneen wet te jàngoro yooyu ak mbas yooyu mën na caa bokk ak dund gu jafe waaye yàlla ubbil na xeetu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam buntu boo xam ne buñ ca jaaree génn ca jafe-jafe yooyu mooy tuub tuub nag lii dal nit ba mu war a tuub yàlla nattu na nit yu bari yu mu ko fi booleel ndax am na fi muy wax ci alxuraan naan ay ay xarn ay xarn yu weesu ay ay ay ay ay téeméeri téeméeri at yu weesu sa gannaaw ñu diñu ko nekk li ci alxuraan yàlla nee na lam leen fi jëlee lam leen alage mooy dañ doon tooñ rek te duñ yëg ne ñi ngi tooñ dañ daan tooñ rek te duñ yëg ne ñi ngi tooñ wala sama yoon nekku ci ku koy def diw ah loolu de affaire am la def ko atteb que soxnaam woowoon bis ne ko dama la soxla mu ne ko bismillah mu ne ko daa am lu may dégg loolu nag du dunduk ay jullit moom daa am lu may dégg de mu ne ko li ngay dégg lu mu mu ne ko kii ñuy tudde mbindaan kii daan dooleem ci kër gi sama bindoon ko man muy jigéen dañoo wax ndaa tolub diggante mu ne ah am nga ci loolu leer mu ne waaw waaw mu ne ko loolu de affaire am la mu ne ko daa am lu ma ci déggaat mu ne ko lu mu mu ne ko yow mii lañ ciy tudd mu ne ko wóor na la mu ne ko ah wax nañ ko de dañu ko wax wóor na la mu ne ko loolu sama affaire la mu ne ko maa xam nga ne duñ bokk nekk ci kër gi mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko loolu sa affaire la waaye boobu att doyut diggante jullit ak moroomam ndax fitna yi daan am la ko daan indi mooy ñu nekkut ci lañ war a nekk ña ca des maanu ca alxuraan mi ngi ñuy wax ne yahud yi banu Israël dañ daan def ci seenu grand place wala ñañ daan àndal dañ ciy dox ba gis nit kuy def lu mu war a def ñu téewuñ loxoom waaye dañ ko naan sa waaye lii baaxut rek mu ne xam naa ko de wala xawma ko xawma ko woon ñu woyofal ko ñoom ñëpp waaye nee na yàlla nee na ci alxuraan ci ñàkk bi ñàkk a fay daal kuy def lu mu war a def ñu maandu ca ba fitna jëy ñëw mën a dal ñëpp dañoo faalewul lu keneen di def mooy fi muy wax banaan kaanu la yatanahawna an munkarin faalu baaxul rek mu ne garawut wala garaaw na de waaye nangam ak nangam ñëpp maandu ca loolu nag ñaar yooyu nag loolu nag ñaar rek moo koy waral ci ci nit benn bi mën naa dal ñu baree bari ñaar yi moom kum dal moom yàlla nuñ ci yàlla musal yàlla na ko yàlla xaj muy càggante ak xol bu wow càggante bakkan lay dal lu metti rek buñ ko ne nañ ko def mu ne nañ bàyyi ba kër gi sedd su fekkee kër gi sedd na mu ne guddi na nañ fa bàyyi ba suba bu fekkee ak suba teel la mu ne daa teel naa jógut te waxtu yu jant bi fenk gudd ak bi mu fenkee ak bi fenk bi mu sowee rek moo am ci jamono waaye lu ñu ko ci mën a wax su dee lu baax la danaan nañ bàyyi ba ngoon nañ bàyyi ba suba teel na di baagante diggante boobu loolu mooy càggante su ko defee waxtu yi di raw te du waxtu yi di am te du ko nekk waaye moo ne yi ñuy tere itam suñ ko ko teree càggante moo ko cee téye da ko koy yàlla seytaane da koy yàlla yàlla day maanu diggante ma seytaane seytaane di ko nëbbuloo naan fexeel ba kenn bañ koo gis rek moo ci am solo sëñ bi laa tere na ko Tuubaa waaye ci mbedd yi la wax dal di indil baytu sëñ Tuubaa woowu naan li ñuy tere na doon lu ne fang loo xam de su ko war soog ko gis waaye su fekkee dugg nga ci nekk daf ko amatu solo te fekk jàngoro joo xam ne day génn day daane ci biir bopp boroom di ko yëg moom kenn bu yàggee su ko bàyyiwut ni ma ngi daan jàngalee naxu naan ma ma di ko def joo gis mubtada la mubtada faaw nga gis xabar su yàggee ñëpp dana ci bokk te moom kenn moo ko doon def. ndax bu wéradee ba ne laaj dana tee xëy aw nit dana leen tee gont kon yàlla nañu yàlla musal ci sàggante waaye xol bu wow koŋŋ nag nga xam ne waaraate mënatu ca dugg moom yaatu na moom jumtuwaay yi bari na léegi yii waaraate waar waar nit ba mu war a mën a wàññiku ca lam nekkoon waaye fuñ dégg waaraate bu dee rajo la dañuy toppale bu dee fu kunung kunung nekk wala lu neex ci seen xol ñu bàyyi ko foofa di wax li ko ñuy wax kal ko foofu te buñ ko kalee foofu bu ëllëgee du baax buñ ko kalee foofu rek bu ëllëgee du baax mooy ñi alxuraan di wax dugal leen ci cadre munafiqun yi xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adabun azim yàlla nañu ci yàlla musal kon ñaar yooyu muy càggante ak xol bu wow koŋ boo xam ne mënut a déglu waaraate kum ne ci moom ñaar yooyu ñooy ànd wa mat ko ba di ko dugal ci ay caaxaan ay mooy yàlla ak bakkaar yoo xam ne ku bari bakkaar moom kiiraay lii liy dox diggante nit ak yàlla muy jaamu yàlla muy dañ par benn ba ba muy jàkkaarloog moom mooy yàlla day gën a talal kiiraay yooyee day dem ba yàgg mu miire ko ba yàgg mu def ko bete arme ba yàgg mu toj ko def ko li ñuy wax fajwa waxum ci fajwatu min wadalik fajwa mooy di dox ci àll ba mu yàgg ab xar-xar bu xóot dox sa digganteeg fee nga jëm mënoo koo jéggi mënoo koo tëb te mënoo ñàkk jàll mooy dee coow li lu mu bare bare ci dee rek lañ jëm te ku sañoon nag yàlla nga ko yàlla defal su faatoo tàmbalee gis màndarga yu koy wan ne dana gis suñu borom kon boog si sàkk nekkut ci ne lépp luy tax nit di sori yàlla yàlla di ko gën di bëgg muy gën di bëgg yàlla loola mat naa bàyyi fa saasa loola nag kon warugal la ci ab jullit saa su nekk muy xoolaat boppam moom ci boppam digganteem ak boppam ak digganteem ak dund gi ko yàlla jox ndax yàlla jox na ko ay tànk ne ko fam suufi manakibiha wa kulu min rizqihi huwa allazi jaala lakum arda dalulan fam suufi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur waaye nag loolu moo mat a bàyyi xel dox gi ngeen di dox ci kaw suuf si di doxi seeni soxla di wax ñu di leen dégg loxo bu ngeen tàllal mu tàlli lu ngeen dugal ci seen gémmiñ xam loom saf du loolu dong ndax seen tànk yooyu ngeen di jaaree ci ngeen di dox jëm si foo xam ne da ngeen di jékki-jékki ni ticcat rek ci pénc bi yoone kaw yi yoone àll yi léeg-léeg dañuy topp aw yoon ba mu yàgg rek mu dugg ci am pénc mu yaatu nga fekk ñu toog ci seen yi yooyu ñu toog léegi yooyu ñu toog nga ne ana yoon sàngam ñen la ma nga ne waaye nag pénc moomee yàlla di wax naan wa ilayhi nushur ku fa àgg koo ne sa waay ana fa di ñoom féete mu ne ah gan laa fi su nar ta baax la gan laa fi wala nga taseeg policier ne ko man ka dama fi gan mun may laajte yëri mbedd sàngam mi jëm ci kër gi mu ne la ah fii ñëpp gan lañ fi bar boobu boo ko waxatee ma ma- ma yóbbu la kaso ba fii kenn talul kenn man mii fi ma taxaw sax yal nañu ci yàlla musal kon nit ki war nay seetaat boppam diggante ak boppam ak digganteem ak ñi ko xam ne ñoom ñoo topp ci ginnaawam ak ñi mu topp seen ginnaaw ñépp képp koo ci xam ne mi ngi ci nekk su dul noona mu fexe ko caa jële moom la Sëriñ Tuubaa di wax aleykumoo yu bari yooyu ci tasawudu sixaar inna rachida ba mu àgg da leen wut ku ngeen di àndal ndax juróom a ngi ne yoo xam ne kuy ànd ak kam war a àndal dana ko ci génne jëme ko ci juróom juróom yooyu yàlla ñu ko yàlla defal waaye war nañuy bàyyi xelit ci koo xam ne daa nekk ci loo xam ne ñëpp xam na ko te du noona ñu wàññi ko fas ko yéene jaarale waat ci yoon waaye ku sàggan ni ma ko tuddee léegi moom la suñu tubaab di wala wala takun mufaritan aw mufrita leen lu ci nekk ñu ne diw ñoom mën nañ ko suñ ko mënoon duñ jëblu ci ñoom suñ ko mënoon duñ topp seen ginnaaw suñ ko mënoon suñ ko mënoon suñ ko mënoon suñ ko mënoon léegi tey mu tëral lépp léegi tey dutu mën dara te da ngay gis ñu bari ñu koy wax ñoo xam ne ifraat dëgg mooy saa bu naree metti jëm ci coono bakkan ak pas-pas bu wóor bu bokkut ak la nga façon mu ne wax dëgg yàlla bi ñu leen topp nag bu ñu xam bu ñu ko mëneen bu ñu ko mënoon yéen duñu leen topp waaye business liggéeyam dugalu ci kenn saa bu xëyee moo ko yoral boppam saa bu xëyee mooy xëyal boppam mooy téléphoneel boppam mooy commandeel boppam mooy génneel boppam waaye su naree metti ci bakkan nag wala ci xol wala ci pas-pas bokkut ak lam jàppoon mu ne ah dëgg-dëgg suñ ko mënoon duñu leen topp loolu su ko ñëpp waxee dana bari lu du dox waaye waxtu wu nekk war nañuy woo nit ñi kenn ku nekk tàmbale ko ci boppam moom di yëg ne am na lu mu def te yëgu ko mu tuub bu xëyee ba ñuy ndékki li taxoon ñu jëkk ña mënoon a defar dañ daan wax gone ne ko ñetti ñetti waxtoo ngi nii yoo xam ne saa boo ciy génn mën ngaa tase ak jinne te jinne dañ ko daan misaal ci noo xam ne mag sax bëgg koo gis waxuma laa gone naan la daa yor nopp yu gudd yu mel ne noppi ñay ba nopp yor ay bëjjën yor ñetti bopp yor nangami tànk yor nangami loxo biir bi moom da ngay bu la ci- ku ku ku ku mu ko may da ngay dugg ci biir di dagg rek ba mu neex la feeg laa loo xol bi rek moo tax ñu xam ne xol am na solo ak pas-pas ñetti waxtu yooyu mooy mooy yan mooy waxtu wi ñuy ndékki ak waxtu wi ñuy añ ak wi ñuy reer lañ ci jublu woon mooy fexe ba ñëpp daja rek ñuy bokkandoo di yëg su gisee kenn ku def bu koy teree mu jaar ko tere ko ñëpp su dee digle mu digle ñëpp dégg waxtu wu nekk ñu daje fa bokk la ñuy am bu dee ndékki la ndéego la nu mu nu mu lu mu tuuti tuuti ñëpp ku ne yor loxoom génne bu dee añ la ku nekk yor loxoom génne bu dee reer ku ne yor loxoom génne ci la nit di demee ba su suñ luñ ko may sax su ko waree lekk moom dong te kenn du ko gis mu mu mu ne naa bàyyi ba àgg si yaramtal ko wan leen ne am naa ko su ko génnee ñu ne ko may ma ci mu bokk ak ñoom njàngale mu am solo la woon moo tax waroo gàll ci julli bu nekk muy dajale ak njaboot naan leen dellu leen ci yàlla dellu ci yàlla nag tekkiwu ne dañu fa mas a jóge waaye dellu ci tegtalam ab joxañam loolu su ñu ko dundalee xéewal yi day bari lool yàlla wax na ko ci ay ay alxuraan jàpp jàpp nañ ci ñaar yoo xam ne dane dëkk bépp suñ maase woon gëm yàlla muy feeñ ci seen jëf seen diggante ak seen borom ak seen diggante ak seen moroome jaam wërsëg dana leen jóge ci suuf ak ci kaw ak yoo xam ne sax dañuy jekk day jekki-jekki rek ñëw duñ ko waaju waaju waajuñ ko woon waaye saa buñ tàmbalee di jàdd par benn delloosi wuñ leen lu may di leen seetaan ba yàgg par kenn di jàdd ba yàgg mbooloo di leen fi fekk yàlla da leen di yónnee mbugal mu metti moo xam ne buñ bu ëllëgee buñ ko jàmbat buñ jàmbat kenn ku dul seen borom seen bopp dal ne leen lu nekk fa mu ne woon ku fa dem fekk ko fa ma nga fa ba tey waaye ci kaw nag ka ko fi fekk mooy ko jaar ci yoon wa ci jëm moom la sëriñ bu mag bi misaaloon ne moom saa bu diglee day ñaan yàlla yool ba muy defal kam kay jëfe ndigal la su suy àggal ndigal la wadd topp ko te kenn dutu ko mën a tàggaleek moom maa la la koy la mu koy fayee wadd taq ci moom ni la si ni weñ yi ngay yor di def ni ci suuf muy xëcc weñ ji su xase ba taq ci moom duutu ko mën a tàggoog moom mukk waaye nee na lii koy xamal ne waa ji def na la mu ko waxoonam déet mooy su xoolee gis lam ko doon fay mu nekk mu nekk fa mu xam ne dafa gub demal Kawlax mu bañ a laaj lu mu fay wuti lu dul rek sëñ bi xam na Kawlax sëñ na koo digal mu dem Kawlax waaye suy dugg Kawlax rek bi àgg si jóoti ba rek ñu jox ko chèque bi waaye saa bu xoolee chèque ba nekk fa day xam ne waa ji ñëwagul Kawlax diggante bi nag lu mu fa day yàlla yoonam nekku ci moom ku ko yebal Kawlax dé barki démb ba tey daaw ba ren demagul Kawlax fa muy jàdd lu ko fa dal bu mu ko wax kenn na ko wax bopp ginnaaw ab jaam nag xamut kañ la ak fan la ci alxuraan yàlla nee na ci alxuraan juróomi yëf ngi nii ba juróom benn moo ko yor moom jox wun ko kenn indahu fa moom la nekk lim na ca ba lima la ca fu nit di faatoo nit xamut fu muy faatoo wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut inna laa indahu ilmu saa am àgg ginnaaw xamuñu fu ñuy faatoo ak nu ñuy faatoo te bis bu set day gën di jege lenn rek moo ñu ci mën a génne ñu am xelam nga dal fii kenn ku nekk la muy yóotu mu du sa jot par ndànk-ndànk xelam di gën di dal saa bu xëyee am lu mu amutoon xelam mën a dal bu ëllëgee xelam ñen ciy bàyyi bu fa bu faatoo moom xel yi mën a dal mooy mu dëkkee xoolaat boppam ak delluwaat ci yàlla ak tuub ndax kat yàlla nee na suñu dem aljanna bu ëllëgee te mooy yoonu mucc mi ngi ko aj ci suñu tuub fu mu toll ci suñu digganteeg moom moom lay wax ci alxuraan naan ay way yéen jullit yépp nga xam ne nangul ngeen yàlla liñ ko war a nangul lépp seen kem kàttan te di ko jëfee muy feeñ ci seeni jëf seeni moroomi jaam di ko xam loolu baax na loolu waaye loolu diggewu ci dara nag waaye dig ba mi ngi ko teg ci baat bi mu njëkk a wax dee leen tuub dëkke tuub moo tax ñuy santaane ci tuubaa ba léegi dee leen tuub tey sàkk sax tey bàyyi tey àq loolu mooy diggante yàlla ak jaam yàlla ak boroomam ak diggante yàlla nit ki ak diggante nit ki ak boroomam ak diggante nit ki ak ak moroomi jaamam waaye yàlla fas na kanamam fasal na kanamam ku naagu ci mbiram ba ne ma mus ta def lu muy tuub far yàlla ne ku jàpp ne defut lu mu war a tuub fas naa sama kanam ci kanamam saa bu mu xoolee du mooyu am na ñoo xam ne buñ meree dëgg-dëgg kenn ñemewu leen a xool ndax lan kooku daa yi daa réere àqi boroomam diggante mag moom ndax li muy def compteur bañ koy marqué yoru ko loolu yomb na xam nit mën naa yore portable def ci crédit saa bu téléphoné ba noppi xool ba xam ñaata ci des waaye bu dee téléphone bu kër la fu ko neex lonk amul crédit amul dara waaye fa compteur bay marqué bañ koy indil ne ko nanga nga war a fay nekkul ci kër gi ci la yeneen loxo la nekk ñoo ñaa koy calculer jékki-jékki indil ko kayit mu naan lii fu ma ko wootee xar la dem bañu wan bañ wan ko ay numéro yam woote yépp kon ñàkkal fayda ak tuub réere àqi nit nit ki réere ak àqi suñu borom ci moom la ndax yàlla mooy bind yu baax yi waaye gëmm la fatuus ci ayib jàpp ne moom amul ayib amul ayib nag lu mu def baax na moo tax yàlla ne ku dul faral di tuub sax waxuma la ku ku ku faalewut waaye léeg-léeg mu ne mu tuub rek xool moo gën a xam boppam ci niñ ko waxee woon xam ne def na nangam wax na nangam mu rëcc ko fas yéene bañ a delluwaat delloo ak yam amoon yépp yàlla nee ne ku ko dul faral di def ab tooñkat da koy dugal ci daayira ñuy tudde ak zaalimoon yàlla ñu ci yàlla musal kon boobu ci tuub rek la diggée ne ku ko def tamit dëgg ci moom yàlla dana ko dindil dana ko jéggal te bu ko jéggalee fa mu koy yóbbu mooy aljanna yàlla ñu ci yàlla boole te tuub gu sell sell sell lay doon kon boobu jullit bu mu dugg ci noppam gaaw dem tuub wéet fenn mook yàlla mu tuub te bàyyi niig niigal fi nii rek ku ko yëg rek mën naa daal tàmbalee tuub léegi tey na naa dem naa nekk ba ak kër ga ndax yàllaa xam feeg mi ak kër ga lu ciy xaw yàlla nañ delloo jàmm na ndax xam ne ab jullit tuub da koo war yàllaa ko gàll ci aw loosam mu naan naa xaar ba xaar xaar xaar loolu sax da cee war a tuub far moom xaar googu muy xaar sax da cee war xaar googu muy xaar tuub daf cee war a tuub far moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne wala lahu taaxirun aw tasaburu li tawbatin wala yaqulu asbiru xata hadaani saaxibu lxufraani fa inna da alaamatu lgislaani maa shaqaawati gi ma doon waxe gi ma wax léegi war a ne qalb inni audu minhuma bi rabb yal nañu ci yàlla musal naa xaar sama ngone laa toll ak ngone moom faw rek dama koy dox dama cee toll di ko dox saa bu ma koy weesu weesu naa ko xamut ba xam dana weesu ngoneem deet naa xaar ba koor ga su muy um far ko umaale tuuwaale xamut ba xam dana fekk koor ga am deet naa nekk ba weeru rajab rafet ndax ndax ndax ndax rafet na ci lañ sañcoon Tuuba am na ñu koy wax naa nekk ba benn panu rajab rek ma tuub lépp xamut ba xam benn panu rajab fu mu koy fekk te néeg ba tuub amatul njariñ yàlla nee na ci alxuraan day am am na fu noo xam ne du fa am njariñ nee na ñi muy nangul seen tuub mooy koo xam ne mi ngi dundee li yëg na lu mu def digganteem ak yàlla mu jëkke fa teg ci moroomi jaamam ñi yàlla nee na ñooña moom ca saasa la leen yàlla di jéggal ndax xam nañ ak dox seen diggante ak seen borom ndax yàlla moo leen fi indi te waxtu wu nekk mën na leen fa jële te waxu leen kañ lay doon waaye ñi nga xam ne dañuy nekk ba wéré di wéré di goo xam ne amatuñ ca yaakaar ñuy jàng lu fu nekk ay kamil di def lu ay dog ku ñu am yaakaar yooyu ne ci moom lu am solo defee ne su ko su ne ko diwala jox li xolam sedd ci moom yàlla nee na amatuñ njariñ su boobaa buntu tuub tëj nañ ko ndax aj makka léeg-léeg nit ki bëgg a aji fekk tëj nañ bunt yi aj makka buñ ko tëjut fii rek fii itam fee ñu aje ji moom am na bis yoo xam ne ku ko fa ñëw doo aj duñ la may wisaa sax far lu moo tax bàyyi xel yàlla mi ngi misaal lépp kon boog bàkkaar bu nit mën a def ak lu mu mën a toll ak lu mu rëy rëy fi moom ak lu mu ca rus-rus digganteem ak yàlla ak lu mu ca jàq-jàq ak lu baax lu mu ko tax di def tuub moo ca gën a gaaw ndax am na ñoo xam ne liñ def yàlla yàlla nee na woon ci alxuraan da ko jéggale mukk am na fi muy waxee naan inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalik wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan baida wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima yaar yooyu yëpp téewul yàlla ne bokkaale li muy li muy toll toll weddi yàlla moo ko raw weddi weddi yàlla ci ak ki yàlla suñu borom gi te nee na woon yéefar yi weddi yàlla nga xam ne yàlla daa taxaw fee ñu taxaw fee gis yim defar yépp fi mu koy wax ci alquran qul man rabbu samawati wal ard sa yaquluuna lillah qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujru wala yujru alayhi lillah waaye yàlla moom moom nit ñi moo leen sañ a liggéeyloo moo leen sañ a tere dañoo taxaw fee moom yàlla taxaw ne yàlla nag nee na ñooñu li ñuy def li muy rëy rëy rëy rëy weesu na bokkaale moom bokkaale moom mooy gëm naa ko tuuti li ci des nàngam la nee na ñee taxaw fee jàkkaarloo yàlla di ko joxañit buñ saa buñ tuba yàlla mën na leen a jégal yàlla jégal leen warlu na ko saa buñ bàyyee ne bokkatuma ci daayira boobu rek ñëw milité ci daayira suñu borom jënd carte membre rek bokk nañ yàlla la weesu yàlla amatu ci soxla yu bari sax ci alxuraan lam cay bu koy tere danaan illa ma qad salaf bu koy diglee danaan wala mu di ko tere danaan la weesu weesu na moom jégal naa leen ko waaye tudd na ay bakkaar yu bari yoo xam ne bokkaale ci la bokk rey nit ci lu dul dañ ko war rey bokk na ca njaaloo bokk na ca waaye nee na ku tuub te muy dëgg ci moom tam fas yéene ak dundam gépp lu baax la koy def mbooleem lu mu defoon cib safaan bu doon dix tonnes la yàlla daf ko koy wëlbatil defal ko ko dix tonnes yu baax illa man taaba wa amana wa amila amalan saaliha fa ulaayika yubaddilu llahu sayyi'aatihim xasanaat ñi nga xam ne dañ naan yàlla ak diw ak diw inna allaha thalithu thalatha naan yàlla naan doomi yàlla ji ak ndawal suñu borom li muy jibril ñoom ñëpp ay yàlla lañ léegi def nañ ko ñeent boole nañ ci yaay sayidna isa alayhi salaam boole ci sayidna isa muy juróom yàlla yàlla nee na loolu lépp bi ci dara wa in lam yantahu amma yaquluuna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim afala yatubuuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurun rahim ñooñee saa buñ tëbee tëb dellusiwaat ne wax dëgg yàlla dañoo juumoon yàlla daal di def sarti tuub dugg ci diine yàlla leen toppatuma leen dara ndax bari na ay saxaaba yu mag a mag a mag yoo xam ne judduwaale wuñ ak njullit te dem nañ ba di leen tudd ci ñi gën a baax ci jullit ñi yàlla boole na leen ci ridwanullahi taala alayhi am na fi mu wax ci alquran naan lu waay def ci ñaawteef lu mu rëy rëy ba benn bis dese ko mu tuub yàlla amut ci soxla walladina ida faalu faaxishatan aw zalamu anfusahum dakaru llaha fastaxfaru li zunubi loolu yonent bi salallahu alayhi wa sallam leeral na ko ci ab xadis bu gudd dama koy tënk nee na amoon na ku reyoon téeméer nit yu manqué ñaar dem wax ko benn boroom xam-xam boroom xam-xam ne ko yow sawara nga jëm sawara la jëm mu rey kooko ne ko dama bëgg dama bëgg yoon wi gën a gaaw lépp lu muy lépp lu ko yóbbu sawar daa bëgg yoon wi gën a gaaw daal di koy rey ginnaaw jaar na ci yoon wi na nekk one way autoroute à péage autoroute gratuite yoon wi na gaaw rek mu dem wax ko keneen mu manqué muy téeméer bu manqué kenn mu rey kooka nga daa bëgg yoon wi gën a gaaw far muy téeméer ñu mat sëkk sallallahu alayhi wa sallam ne kam demaat di ko ko wax yàlla da koo déggloo wax si ay waxam ci ne ku tuub yàlla mën na ko jéggal kooko ne ko li nga def rëy na lool foo dëkk mu ne dëkk sangam mu ne ko demal dëkk sangam foofa jaww ja jaww jaamu yàlla la jaww ja màndi na si jaamu yàlla ak suuf sa soo fa demee boo tuubee yàlla mën na la jéggal mu xëy takki bagaasam di dem faatu ci diggante bi bi mu faatoo ci diggante ñaari ñaari groupe bi malaayika ñaari peloton yi malaayika jëkkante ko ay commando commando bi ne ci li li mu mujj def ci lañ koy àtte ñun ñoo ko yaayoo ñenn ñi ne déedéet lam jëmoon ci lañ koy àtte ndax moo ko taxoon na xëy yàlla yabal ku leen di àtte ba mu leen di àtte dañ kooka daf ne natt leen diggante yi fi mu jógee fi mu dem fu ci sut ba ñuy natt diggante yi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla da digal fa mu jëmoon mu gën a jege si ab sabare kap mu ne kon léegi fa mu jëmoon lañ koy àttee ndax loolu ko taxoon a jóg te tuubagul sax far ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na xare boo xam ne dañ koy waajal boobu yonent baa nga Madina mooy fi ñuy waxe ne am na ku mës a nekk shahid dem aljanna te mësta julli mësta woor kooku daa ñëw ne yonent yi danga leen a bëgg a jàppale ndax xam na ni ay jàmbaar ngeen ñii ma gis ku leen nangoo ku nangoo taxaw ci seen kanam ñeme leen yow boroomu fit nga te man loolu lay wër yonent bi ne ko déet bala nga bokk ci ñun kat da ngay dugg ci suñu biir da ngay am carte de membre mu ne ko lu mu doon mu ne ko ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah mu ne ko loolu yow mën daal di koy wax yonent bi ne dalal leen ko ñëpp ñëpp moo doqoo ak moom maanaam moo aanaqa ñenn ñu nekk joxante tegante dënn roofante ay lex def ko mbokk diggante boobu wenn waxtu bu ñuy war a julli amul diggante suba la ak tisbaar suba weesu na tisbaar jotagut xeex bi tàmbali ñu jam ko mu daxa jafaatu yonent bi ne ma nga àjjana ñu ne ko loolu mën a amee ñun ñu fi nekkoon daaw ba ren mu ne yàlla ak mujj lay àtte yéeneem buñ ko boolee yéenee ku jëkk loolu moo ko yóbbu aljanna mooy jógee ci lam nekkoon rek dugg ci lu baax yal nañ ko yàlla defal moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne bu bu bëccëgee yàlla day yàlla neen day tàllal loxoom ne ana ñi teg seen ñi ñi defoon ay ñi fanaan woon a def ay caaxaan biig ana ku ciy teg loxoom ma jégal ko ndaw lu yomb loxo bi yàlla nga xam ne moo daj na fépp kenn tegu ca wala ñi cee teg teg nañ ca bu guddee mu ne ana ñi yendoo woon a def ay caaxaan tàllal loxoom teg teg lañ ci sama loxo képp ma jégal leen ndaw lu yomb mais noonu lay dëkk guddeeg ba cag kon tuub amul guddi amul bëccëg waxtu wu nekk nit mën na tuub yàlla jëkkal ko yàlla ñu ko yàlla defal am na xadis boo xam ne abdullahi ibnu omar sayidna abdullahi ibnu omar radiallahu anhu moo ko nettali nee na saxaaba yi toog nañ ci grand place bu yónente ba nekk sallallahu alayhi wa sallam ñu wàññi ci seeni baaraam ëpp na benn jataay waaye jataay ba wàññi nañ ca téeméeri yoon yu mu wax baat yi may bëgg a wax rabbi ghfir li wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim dégg nañ mu di ko wax ñu di ko wàññi ba ma téeméer yoon ñu bare fekk nañ jotaay yom ko wax gannaaw yonent bi nag mooy dem ba naan yàlla jéggal ma maa ngi tuub ndax yow yaay ki nga xam ne ku tuub nga jéggal ko te yaay joxe cër bu ëllëgee arrahmaanu rahim arrahim kon waxoon waxoontuma la nag ñun yi nga xam ne ñun du ñenn baat yooyu nañ ko jàpp def ko werd te te te te fas ko yéene jëfe ci suñu jër rabbi xfir li wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim rabbi xfir li wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na néew na lu jant di fenk ba so wala jant sa ba fenk te du wax astaghfirullah wa atubu ilayhi lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon astaghfirullah wa atubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon nee na néew na lu jant bi fenk ba so te waxu ko lu ëpp loolu wala bët wala jant bi so ba fenk te waxu ko lu mat loolu kon moom la dëkke woon ginnaaw moom mi yàlla ne toppatuma la dara la weesu ci gën a wax tuddutuma la topp moo daa fanaane taxaw ba tànkam yi newi soxnaam su doon jànge ci moom ne ko xanaa li yàlla wax dalaa doyut nit ku koy gën a jege soxnaam amut ku toll na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ne ko xanaa li yàlla wax dalaa da nga ko gëmut inna fatahna laka fathan mubina li yaghfira laka allahu ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran aziza xanaa da nga ko gëmut mu ne ko afala akuna abdan shakura dama dama ko ciy sant ndax defaloo ma ko lu jar lool daana dem ba waa këram duñ taal dara ay fane fan duñ taal su reer jotee dañuy taal ci cin la rek di xam bu woo gone yépp ñu groupe fa ñu napp nappaleen bañ nelaw mag ñu ne këmm te moo moomoon lépp yàlla jox na ko lépp am na si Mahamadul Busiri wa rawadatu jibalu shumm min dahabin an nafsihi fa araha ayyama samami doj yi wër makka te rëy lool nee nañ ko tee nga ñoo sopp tee nga ñoo jox ndigal ñu soppi ko wurus rek nga jaay ñu am dara muy leen jomb naa ko loolu doy na ma maanaam yaa moom yaa tax ñu rey nag bi doy na ma daana xiif boobu téew daana taxaw ba du am lu mu taxawee ndax balaa saako ko taxaw daa def dara saako bi def dara mënut taxaw boo ko bàyyee mën a gañu àgg suuf waaye Muhammadul Busiri nee na bu bëgg bu ma saan bëgg a taxaw jaamu yàlla ci guddi gi tëb xiif di ko bëgg a sonal ndax nit la woon léeg-léeg comme ñun da daan wut lu mel ne ceinture yi xew léegi nga xam ne dañ ne ku ko takk di voyage doo tooy yi mel noonu la daan fab ay doj moom ba biir bi fees dell ba nga xam ne faar yi duñ daje mu takk ko ba mu dëgër takkalu ko ci ginnaaw ba mën a taxaw maa fi wax ne wa shadda min sarabin axsauhu wata wa taxta alxijrati kasran mutlaqal adami kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam foofu la nekkoon loolu la doon dund moo tax alxuraan ne foofu laa jeexale yéen samay jaam su ngeen demee ba jàpp ne mënta tabax waay waay mënta tabax yooyu bu leen fi yàgg dem leen ba yàgg ngeen ne dana baax jàkkaarloo yàlla rek ñaan ko te wàññiku yoon wa ngeen jëmoon xam na du waawa daf na yonent bi qul yaa ibadiya alladina ashrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia innahu huwa alxafuru rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatikum aladabu summa la tunsaruun wattabicu axsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatikum aladab baxtatan wa antum la tashurun di wax naan néeg moytu leen néeg ba ëllëg ngeen naan yaa xasrata ala ma farat fi billah aw taqul law anna la hadani lakuntu min almuttaqin aw taqul xiina tara al azab law anna li karratan fa akun min al muxsinin loolu la Sëriñ Tuubaa tënk ci yaari bay ne ñi faatu ñëpp soo leen woowoon téléphone tey di leen laaj ana luñ gën a bëgg ci àdduna ana luñ gën a bëgg rek seen bëgg-bëgg benn lay doon nee na mën nañ la bañ a wax gis sallallahu alayhi wa sallam am na ñu koy wax waaye am na ñu koy mën a bañ a wax waaye génnewu ca kenn am waat la wax am na ñoo xam ne yàlla gis sañ diw waaye nee na ñoom ñépp li ñuy gën a bëgg gën koo xeemeem mooy dellu soot adduna sii doonte benn minute lañ leen fii may wala lu ko yées ñu def fi lu baax delluwaat ndax xam nañ lam fay jariñ def lu baax nag la koy tax a baax gannaaw tuub lay doon ndax balañ caa def da nga koy raxas ba mu set suñ ne indi leen ñu yekkal leen ci serang gi da ngay gis ñépp raxas seeni dab yóbbu kenn du fa yóbbu yenn dab ndax kay tibb su xamee serang dëgg dëgg liy valeur am xiimam serang ak niñ ci sonne danaa dama raxasi dab dama raxasi ko kon moo taxoon sëriñ bu mag bi tax li yàlla wax ne mooy jiitu ci nit bàyyil nangam ba mu bàyyi ko ba fàtte ko ñu taxliyee ko duy ko ba mu fees raxas ndab li ba mu set bitti su amee bën bën ñu nga ñu ñu ñu ñu taf ko su amee xar-xar ñu ŋànk ko doo caa yàq ginnaaw ñi ngi fi faatoogunu yàlla ñu fi yàlla gën a bàyyi nañ dellu tuub ndax bari na luñu lu ñu dal ñun ñépp loo xam ne mën naa am kenn moo nu ko teg ci israaram israar ak taswif sëñ bi mag bi wax na ci masalikul jinaan ne lii gën a yàqal nit saa bu ñu waxtaanee ba àggal nit ñi ne sawaun alayna aw ansta an lam takum yar waa'isin kenn ku nekk delluwaat ci programme am nee na dellu ba ñu ci delluwaat kenn bañ a faale mën nañu indil yi ñu dal yépp taswif ak israar taswif nañ bàyyi ba ngoon nañ bàyyi ba suba naa nekk ba doon mag at yi ma toll dama ko war a wane ñu xam ne toll naa ci danga ciy toll toll ci am na ñu naan sabbi yéen sabbi wala kaana nabiyyan daa leen ko fitante ci daara ji naan sabbi yéen sabbi yéen lan moo ko war a nasab ndax ñaari mafuul benn bi fi'al lay nekk benn bi nekk mafuul bi allah allah ittaqullah lañ ci jublu waaye sabbi yéen sabbi wala kaana nabiyyan lan moo nasab ñaari sabbi yéen yi loolu nu xaay yi gëstu nañ ci gëstu mu jaaxal jaaxale jaaxale na waaye ak ndaw faw ñëpp jaar ci doon ci ab yonent la ab yonent jaar ci ndaw li ñu tudd ak ndaw ab yonent mu du ci mas a jaar yàlla na yàlla defal dégg ak topp te musul ci fexem seytaane te musul te marale nag boppam yaxfirullahu lana wa lakum